www.sangatv.com ki ñu fekk si nag eh, di sëñ Abdoulaye Gaye ñu ngi lay eh, ziar kontaan ci eh, teewaay bi programme bi lee defe naa at bu jot Daaru gay gépp di ko pare mm-hmm. bisimilah waa mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di nuyu ñu bokkal plateau bi. Eh, di leen siyaar di am contentement trop ci dalal bi ñu dalal fii ngir ñu waxtaanee lu Daaru Gaye. macha allah eh, di bés bu màgg boo xamante ne ñu ngi koy def ci eh, ren ci fanweeri at yoo xamante ne ñu ngi koy def. di bésu Sëñ Maxtaar Gaye di bis boo xamante ni bésu Sénégal la. bésu jullit yëpp la. Mm-hmm. ñu ngi ci woo képp koo xamante rek yaa ngi wuyoo ashadu an laa ilaaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bis boobu eh, bis bi nag bisu ñaan la eh, bisu jaamu yàlla la eh, bisu fàttaliku dëkk bi la bisu retrouvaille la pour waa Darou Gueye yëpp ak képp ku xam waa Darou Gueye bi le 3 février 2018 ca ca ca ca Darou Gueye di ci woo ñëpp di woo ñu nekk ci diaspora bi ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci àdduna bi yëpp di fàttali ni rek yoon bi neexu neexul nag waaye ñuy ñaan kuy ñëw rek nga teel a ñëw ngir bañ a guddee. Mhm. ngir bañ am benn jafe-jafe mën a ñëw ci jàmm euh, dem ci jàmm. Mhm. Euh, kon euh, daal Pape bis bi guddi guddi rek ngeen ko def wala bëccëg bi yëpp la bëccëg bi yëpp la. bis bi mi ngi tàmbali bu 10 jotee rek. tàmbali na dañ fa jàng ay kaamil toll ci ay juróom fukk juróom benn fukk. sànni bàcc mbooloo mi mu ngoon jotee ñu fanaane jàng ay xasaayit. Mhm. sëñ Cheikh Diom Mbaye mooy jàng guddi ga. am na cérémonie officielle boo xamante ni ñu ngi ko fay def ñu ngi def suñu invité d'honneur Souleymane Sy Diop. dina fa teew mi nga xam ne moom le président la république dégg PUDC. Euh, dana teew si guddi gi. incha allah moom lañ def invité d'honneur bi. Euh, bëgg rek euh, lépp loo xamante ni rek xew na fa ku sedantee TFM ñu seddaan ko ndax mm-hmm. wax dëgg yàlla ku ne xam na ni suñu xarit suñu rakk di Mamoun Gaye mm-hmm. Touba Ameublement seen partenaire bi bisam la quoi yàgg ah, ngeen te ku fonk télévision ah, voilà voilà voilà mu xewal lu mu jàmp jàmp jàmp buñ ko ko waxee mu mu jàpp ci donc kon defe naa bis bi suñu bis la moo tax ñu woolu la tey te xam naa ne ci bis ba it mhm. euh, dinañu ñëw bu ko defee wane ko ci euh, télé bi ndax daaru gay it Sénégal la bokk euh, boo demee bitim réew wax nga ko léegi bëri na ay doomi daaru gay yu fa ne mhm. fii Ndakaaru it ñu fa la ñu fekk baax te xam naa ni ñoom ñëpp dinañ ñëw ci màggal mhm. ko mag googu la waaw kontaan ban message ngay joxe sénégalais yi ci ñëw bi tey la ñëw xanaa te ñëpp teel a ñëw rek. Euh, te euh, ñëw si jàmm dellu si jàmm. Mm-hmm. Euh, ñu ngi wax fàttali rek ñu ñëw nañ fi nekk ci ndigalul sëñ Abdou Mbacke mu nga xamante ni mooy xalifa Darou Gueye di xalifa mm-hmm. sëñ Mokhtar Gueye. Mm-hmm. ci ndigalu président de l' organisation Serigne Cheikh Gueye. ak président association ànd dafa Darou Gueye Serigne Modou Sall. ak mboolem ensemble Darou Gueye yëpp ak nekk ci diaspora bi ñu nekk si si Sénégal. ñu ngi fi ñëw si seen digal rek fas yéene yéen ñëpp nag ngeen teew ñoo di invité Darou Gueye. ngeen teew ci màggal gi ñu defandoo ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Pape jërëjëf waay jërëjëf si ngeen siyaar bu baax donc saa su léegi woote bi daal mooy invitation mooy invitation ah, boo ci mënut am xarit euh, nga am si soxna sant Gueye. waaw kon yow wut ci ah, borom kër. waaw sama yaay Gueye la sant. <laughs> alaaj Pape euh, xam nga réew mi xam nga xam nga mm-hmm. euh, li Cheikh Abdoulaye wax léegi. li Cheikh Abdoulaye wax léegi alaaj Pape. Mm-hmm. dëkk boo xam ne boo fa demee. Mm-hmm. daañu jàng lu lu juróom fukki kaamil rek wala lu ko ëpp. nga dem fekk fa nu koy tëjee. Ah, ah. loolu alaaj Pape nit mën na ci subi àddina ak alaaxira te yooyu nag moo téye réew mi. le 3 boobu waa Bousra ñoom fukki fan ak ñaar. daara jama jàngee ñoom le 3 ak le 4 la. mais bis bu ne li ñuy jàng ci ay kaamil sëriñ bi ne da koy gis nga gis nga gis nga bëri bëri na ci ay dëkk yu amal ay màggal xëj na nit ñee ko doon yëkk rek waaye mm. Sénégal dëkk boo dem mm. moo xam village la moo xam dëkk bu ndaw la dañu fay def ay màggal ay ay màggal chaque année baki démb am na ay xarit yu dem ba Sagata ñu doon amal euh, euh, waaw gàmmu gàmmu gàmmu Sagata dëgg la euh, gàmmu xaw ma màggalu Sagata mais at bu jot dañ koy amal ci ci ci moon alaka réew mi réew mi ku ci nar ku ci nar def ak mbon ngon mm. mbon ku nar a yàq réew mi yàlla moo lay weer ndax réew mi alaaj pap mm-hmm. ci mag ña ba tey bis bu ne liñ fiy jàng ci ay kaamil mhm. liñ fiy def ci ay salatu ala nabi mhm. liñ ciy def ci ay istixfaar mhm. liñ ciy euh, def ci ay dog di màggal borom bi subhanahu wa taala liñ fiy tàntal Seydina Muhammad ci réew mi Sénégal rek la am tagg gi ni tagg rasulullah te yàlla kat yonent bi rek la bëgg mag ñiy wax ne nag cere njaboot boo ci bëggee da naan doom ja xam nga loolee la mooy ku ne bëgg na yàlla bëgg la yàlla ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg moom dina ñëw. di nga ñëw réseau bi waaye. daara jama jàng yaa xam naa kokki la jëm moom bis boobu. docteur le 10 mars. sa kokki mooy France ma fekk moom. mais docteur maa ngi la fa xam nga le 10 maa ngi naan la bëggoon naa ñëw. le 10 mars le 10 mars le 10 février. waaw gàmmu ñeeñoo yi mooy gàmmu ñeeñoo yi mais man le 10 février ngoon gi maa nga jëm Bargny. ci teewaay sëñ Mbaye Mansour. ñoom Sophie Gueye maa ngi koy firi. te guddi ga maa nga jëm pour ñoom sama Tidiane. waaw kokki caamin le 10 ak le 17 la parce que le 10 mooy gàmmu ñeeñoo yi gàmmu googu benn baas la murit ak tijaan amul tarixa mi ngi la ak waa ak waa kër suñu baay Ablaye Ñang yi mhm. ñoom sama sama jigéen yooyu yu baax mhm. yooyu soxna Bali ak soxna Fatou mhm. noonu suñu waajur noonu lañ ko doon defee benn baas lay doon ñu fanaane jàng jàngkat yi ku jàng doo ñibbi da jàng bu fajar jotee yonte yàlla mi nga xam ne moom mooy moom mooy mooy mooy pas-pas bi ñu dajee ci moom ci la waa kër Maam Matar Dumbe waaw kër Maam Matar Thierno Mbaye barki démb defuñu conférence de presse. Euh, non conférence bu mag bu les Senghor. oui conférence bu mag professeur Iba Der Thiam. waay waay ak euh, euh, ñoom Jim Gaye uh-huh. docteur Jim Gaye uh-huh. le 17 it. waa kër maam Baye Modou Mbaye Thiamène. Uh-huh. le 17 mooy seen gàmm. Baye Souley moom mooy xalif général bi. incha allah naa ne loolu moom mooy Sénégal. waaw nit nag dana yor mbalitam. indi ko ba sa biir kër ëmb ko ci mbubbam. tuur ko sa biir kër defe ne moom pare na ci mbalit mi. waaye ba mu demee wàcc na fa mbalit waaye xet gaa ngi ciy mbubb dëgg la de <laughs> ñu indi lu <laughs> allah donc ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Abdoulaye Gaye bu Daaru Gaye donc màggal gaa ngoogu le 3 février la koy amal mm. euh, keroog itam maa ngi leen di wax ni euh,